ndigal ak fu serigne muntaka Mbàkke khalif général des mourides serigne Abo mohammed Mbàkke khalif dadou salam njabootug mam Cheikh Anta Mbàkke eladji mam Cheikh Anta Mbàkke khalifa serigne Mouhamadou Rokhaya Mbàkke di nuyu njabootug mam Cheikh Anta njabootug serigne Mouhamadou Mamoun Mbàkke njabootug serigne Mouhamadou Rokhaya Mbàkke cheikh yi ak talibe yi di len jottali ay cant yu ànd ki ngeureum ak ñaan ngir seen pëstëf ak seen taxaway ci mbollem ndigal yi nu weesu maam Cheikh Anta Mbàkke mi ngi len di fatali ak diyey Daaru Salaam yenu baaxoo at mu ne di liggéeyub maam Cheikh Anta Mbàkke bu ko njaboot gi di liggeyel diko ko ko khadim rasoul Rasuul nan ci farlu ta fonk ko te lépp lu ci way mën mu def ko lu ci way mënut mu jëm ko te kenn ku nekk fexé ba def ci lu raw lam ci defon daw mi ngi leen di xamal ne addiye daru salam dañu ko ak magaluk yeslu dañu baaxoo ngir di ca fàttaliku serigne mouhamadou roqaye mbacke sunu jambar ja te sosoon magal ga samedi lay doon juroom ñaari fan ci wéru janvier ci daru salam mam cheikh anta nag mi ngi ci soñi bopam li ci soñi kumu bokal mam cheikh anta mbacke kumu bokal serigne sëriñ mamoun mbacke kumu bokal serigne sëriñ mouhamadou mbacke mbàkke ak jigéen mak ak ndaw bisup magal ga nanu ko wajal ci jang alquranul karim qasida istighfar sikar salatu ala nabi ak bernde bis ba nak dañu fatlikou serigne sëriñ rokhay mbake serigne abdou rahman mbake ibnu serigne Abdou Khoudous mbake yalla len sa borom doli ay ngeureum ak leer mi ngi soññu cheikh yi bëgg cheikh bu ci nek soññu ñi mu jité serigne Modou Mamoun sila xalif cheikh ma Silla ndaak ca njalam sëriñ Modou Mamoun de ci daru salam serigne Modou Fari Baaxum daru Baaxum serigne daru Baaxum ci daru Baaxum serigne cheikh ca Lambay Longoor bay serigne jay ci ngoy xem serigne Abdou Baaxe mbake ci gawan serigne Dam Cambar serigne Moussa cham ca Amin Gaawaan Bay Sugu ci refan serigne Aliou Fay ci ngangaram serigne Modou Rokhaya Tine Bari Ndol Ndol docteur sëriñ Mouri Silla ca njalam sëriñ Modou Rokhaya Sylla ci Njalab serigne Modou Mbacke Fall ci Ngane sëriñ Ibrahima Ndaw Kalañ sëriñ Cheikh jeng daru Sogaire serigne Ndongo Mbay Sindiane sëriñ Abdoulahi Tine waa Kër Cooñ sëriñ Pap Ndiaye ak um jabotam serigne abdullah tin ba daru Kibari serigne Mamadou tin ci italy serigne Modou Diom patile serigne Daouda Diagne ba daru qadim serigne Bay Sall bokki Càlle Jurbel serigne Abdou jeng ci daru salam serigne Asugu ci ndaxati daru salam serigne Ousmane Diouf ba Tongol serigne Modou Samb ba Touba ber serigne Modou ndiou ba daru ñaxen serigne Cheikh Ndiaye ba Baku ndieme serigne Omar fay ba Ngangaram mi ngi soñu jëwriñu dayri yi bëgg jëwriñ ju ci nekk soññi mbooloo ma mu jiite wa daru Salaam njiitul bay Serigne Wadd ak soxna Ndey Diop wa dayra ngay Mexe njiitul Serigne mudu Mamoun Diagne pandindi Ndindi njiitul Alaaji Cheikh Diwan Sila Serigne dan Fall wa dayra Sidi Xutaan ki njiitul Serigne mudu Ngom wa dayra Jurbel Kër bay Laay njiitul mam Cheikh Anta wa Refaan ki njiitul Serigne Badou sugu Serigne saliwu sugu ak Serigne Mbaye sugu Touba Madiyana njiitul Serigne mustapha Jigal Touba daru Marnaan njiitul Serigne Ousmane Ndiaye wa Tongol njiitul Serigne Abdou Fall Serigne Ousmane Diouf fallo ngor njiitul Serigne Moussa Ndiaye daayira Modou Fall Samba Ndial ba Kaolack njiitul sëriñ Abdou Aziz Babou ba Grand Dakar njiitul sëriñ Adama Touré ba Kadd Dieye njiitul sëriñ Issa Dieye ak sëriñ Mbaye Signane ak Mame Cheikh Mbaye ba Thialé njiitul soxna Ami Ndiaye sëriñ Modou Diom ba Pire njiitul sëriñ Gora ba Ngay Ngay njiitul sëriñ Khali Gaye ba Mbomboy njiitul sëriñ Djib Diouf ba Mbour njiitul sëriñ Maguette Gueye ba Diourbel njiitul sëriñ Mor Sall sëriñ Mbaye Sall waa Njemeen Louga njiitul sëriñ Souleymane Ndiaye Dakar Malika njiitul sëriñ Talla Diakhaté ba Touba marché Ocass njiitul sëriñ Aladji Ndiaye Abdoulaye Tine Serigne Mouhamadou Tine waa diaspora bi waa Italie njiitul Serigne Aliou Mbow waa Espagne njiitul Serigne Modou Mamoun Ndoye waa France njiitul Serigne Ahmed Sey Serigne Amidou Mbacké waa Amérique njiitul Serigne Modou Mbacké Fall waa Argentine ci njiitul Serigne Fallou Gueye Serigne Ngagne Dieng waa Allemagne njiitul Serigne Modou Rokhaya Diop Alaaji Mame Cheikh Anta Mbacké ibnu Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké di soññi rakkam yi doom yi ak sët yi ak jarbaat yi seex yi jëwriñ yi dayre yi magaluk Yeslu, ganu baxo fàttaliku serigne Mouhamadou rokhaye mbake ma sosoon magal gi samedi juróom ñaari fan ci wéru janvier 2023 ci daru salam aji Cheikh antane nu jaaju tafarlu ab mourid addi yak ndigal nako warlu aji Cheikh Anta mam jëdey ku ko bo le sopp ak nangoo ko jeuf ta dugantal aji Cheikh Anta jeuf ndigal ci la rombe kuy rijal bu dambi ya la dambe Modou Mamoun tawam ba wutu ko am dam fariix hak sunna taalibe mësu koo jam di ko Cheikh Bamba wolu seddu ko ab cer moko yor yar ko xey ko fal ba mu don beur say xey mot ko wuutu di saf gar ci dëggoog jëf ndigal lu baax a ko daañor ñor xaaji seex anta wuutu leen yitte jaa ñëw mel na gaynde ndigal ba addiya mooy raw yal na buur yàlla ful fanam ba mu am wér rakk doom taalibeem ya farlu te am ngor addiya ak màggal ak siyaar bari na wiiw ngir pajug aajo ak texey mucc ak raw la qualité différence